برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلأبي بكر أشار إلي أخي وحبيبي وابن أبي الشيخ محمد العربي سيدي عربي ياسر أن أسدي ولو كلمات قليلة بالعربية كلمات الشكر لإخوتنا الموريتانيين الذين حضروا معنا هذه الأمسية المباركة ولا غرو في ذلك ولا غرابة وهذا المجلس مجلس الشيخ إبراهيم وقديما فقالت العرب كل الصيد في جوف الفراغ وها نحن جميعا في جوف الفراغ ف الاجتماع لأجل ذكرى أحد أحباب الشيخ وإخوته الأشقاء الذي شهد له الشيخ بالمحبة والصدق والوفاء والعلم والكرم والولاية والشجاعة شهد له الشيخ كل هذه الأشياء عاش محبا لشيخه ومات محبا لشيخه وسيبعث يوم القيامة إن شاء الله محبا لشيخه ذات أول حاج محمد زينب الذي نجتمع الليلة لزيارته ولذكراه وأنتم معنا آه، ولا غرابة في ذلك فموريتانيا بلد بلد بلد الأحبة بلد الأحبة آه، أحد الموريتانيين في عام 1964 التحيت به في بطريق وكانت مسلمين مدينة كبيرة لكنها كانت خاوية عن إخبار الشيخ لم أعرف واحدا لم أعرف واحدا في مسلمين إلا أبو عصرية كان وحيدا في مسلمين وحيد نعم كان يأتي كان يأتي إلينا في المعهد الإسلامي ويأخذنا في يوم الخميس ويوم الجمعة ويذهب بنا إلى خيمته ليكرمنا كنا ندرس هنالك نزلنا ليلا وفي صباح البنك ذهبنا إلى أحد دكاترين أهل الشوفة قلت له بكلمات يمكن غير فصيحة بالحسانية سلمت عليهم ثلاث مرات في المرة الأخيرة رد علي قال شكرا لو والله احنا حكم عاروني برا لا لا لا لا لا لا لا لا قالوا لا شيء كان كثيفا مسنا طاعنا في السن امر خادمه بان يناديني قال وهاي كلمه شيبان مسك بيدي وقال لي اسمك قال انا اسمي محمد بشير قال لي محمد بشير صمت قلت له يسقط قال لي انت ابن محمد زينب ولا الشيخ عمر أيهما ولدك قلت له محمد زينب قال لي وخير أمر صاحب المحل بأن يكرمنا قال له هذا بيت بيت جده كان محقا علويا هنا نزور جده هو كان معروفا في مجلسنا مجلس العلم ما والدي ما ما والدي ما ما والدي أكرمنا عشرة أيام ضيافة كل يوم نغدو ونصبح ونغدو في ضيافة لانه وصى وصانا به صاحب المحل اذا فالغرض من ان نراكم معنا مجتمعين هنا في هذا المكان لتحتفوا ولنحتفي نحن ايضا بهذا بهذا الرجل الكريم هذا العالم الجليل هذا الذي كما قلت عاش محبا ومات محبا ولا غرض بأن تقابله الذكرى شكرا وقيما ما في te xam naa ñi ma xamul sax ba suñ ma gis suñ ma gisee suñ ma suñ ma war naa maa ngi ñëw hmm. ñi ma xamul sax su ma gisee dinañ xam ne kontaan naa tey dëgg yàlla. ñi ma. xam-xam ñi ma xamul ñëpp su ñu gisee xam ne kontaan naa li may kontaan yëpp fadlatul imaamul akbar moo ma gën a kontaan gis naa jumla juñ daane rek ci xasaayid yi wala ci nasr bi rek dana yëngal boppam ku mel ni bu di ma fàttali dañ ci waxoon daaw jéeg li muy dégg waxtaanam fii mu baax na wante alal ji itam baax loolu la jiwoon daaw daaw jéeg waaye baax na wante ala ji itam baax na xam nga wax dëgg yu koy firi bàyyee ma wax man bàyyee ma wax ñi koy wax ñu ci bëri bàyyi wax leen sama bàyyi bàyyee ma wax itam ci man bëriwul waaye yàlla nag maa mos a baaxee yoon bi bàyyi lu ci bari fekk ma fa Cheikh Mbacke yi di faram ko may xaaree nag bàyyi taalif Samba Ibrahima. والعلم كله وديق الامام الهاشمي وفضله من كل جنب مو اخبر لو كنت كنا يوم امام حسن سيسير رضي الله عنه من قد اب شيخ محمد بن كبير فاي اب شيخ ابراهيم النبي ارم ورم ورمي لepp di deug ma ko war ci bayina ma jangal ma jang ba ex ci يجب عائدون لا يرون مشوشا بينما لا مشوشا اي مشوها فجيت انت قلت انت تروح ولا ينكر قصد بالذات انت والنمتي لما يجب عائدون لا يرون مشوشا فقد غاب فرع صاحبي عنه و نعم ما ينبغي كاتل كلمة وأصله ما ينبغي كاتل كلمة من مدير الدين والدين والنيل أنا فيه olof yi dañuy léegi ñu ne mag bu sëbëtam man yu ganaar lu mu wax ñu ne ko dafay juum. bu ma ko waxee rek ba noppi sama bàyyi mu ne moo bëriwul waaye lu ci demee ñëw naa ko rek bàyyi ma wax ci Moustapha hôpital Italie bi ci ngay ñu toog mag moom suba ba ngoon jot mu ne ma waxtaan mu ne ko si man ñaar rek ñoo sañ ak ñax ci ma ne ko bàyyi luy ñax xam naa sax luy ñax mu neex mu ne ma mooy pour la jiite rajo joo mën ta fay ma ne ko kan la bàyyi mu ne ma su ma bàyyi rajo ma fay nëbb loolu ñoo ma jiite rajo joo mën ma ne ko fay nga leen mu ne ma naka mu dem loo ma ne ko sa bàyyi tasaare diine xam-xam ak njub ak tariqa ak kakkee bopp gi rek boo ko yëkkati woon loolu yaakaar naa def na ci loo xam ne bu doon dund su fekkee dina ci egsi pour koo weesu. mu ne maag lan ma ne ko alxaaj Mouhamad Zeynab bu man Cheikh Tidiane Seydi Arab bi Cheikh Ibrahim Roqiya Zeynab suñ tasee la moom ci mbedd suñu neexee duñ ko nuyu na xamuñ ko. lépp loo xam ne bu doon dund defal ko bëgg na ko ci ñun yaa ko def ci ñun. Yani güzelden bölgeler Kur'an'a hamdülillahi rabbil alemin. Yani güzelden bu mahak gidip yani yandan sınıf olsun. Ve bundan çok naks don bokuyunu çok. Yalnızlar odu, yalnızlarlar sevgili kırmızı falan. İki amca bak sakalım yıp, iki de içine var yarın kumay, kaça var yıp. Arkadaşlar her muhtemelen bu burun bunu bana atsın, bu zekse bana koyuyor. mu déglu ba baax mu ne ma li nga wax yëpp dëgg la waaye xamoo li ma defal ñu ne maa laaj xoolal bàyyi mu ne bàyyi bàyyi bàyyi mu nekk ci relation Maroc di fàttali ku dara nga xam ne jëriñ bu ko te mu ne mu ne fay ko waaye du dara rek tegtal dara lu baax arab yi ñu ne laa ilaha illa fadla illa dawu borom ngëneel rek mooy xam borom ngëneel ku baaxul doo ku la teral nga bañ ko looloo xew fi mu ne ci adduna bi bu nit amee ci yow daraan la nga bañ ko bu la mayee xaalis nga ne sàcc la bu la mayee yére nga ne du ma ko sol daf maa liggéey looloo xew fi mu ne xaaj Mouhamed Seye bu mii nag muy jéewoon tey lu baax mu ne def na ko ci dëkk bi maa ngi gërëm waa kër yëpp wax naa fii fii ci détail fii ci dëkk bii si daara bi wax na ko léegi foofa waxoon na ko bàyyi اكرمتني واكرمت والدي فعش قرنا بذكر محافلي اه وطر حامد وروح ضايق اكرمتني واكرمت والدي فعش قرنا بذكر محافلي كرم كما كان سوى باي واي من الكاميرات نحن كرم مسلم بكبي كرم الحاج محمد زينب مو بكبي سيفكو كرم رقم يقول لك كرم رقم محمد زينب moo ne moom ko nag say jikko ñoo ko jox suuf suñ dëkkee ñoo ko jox tool yi mu doon bay ñoo toogoon wër ko mu tabax jumaa di ko jiite lépp lu ko yàlla may ci xam-xam ak kii ma waaye bu bokk koo waa dëkk bi kër goo dugg ko maam ma nga fa loolu ku foog na ndax ki ko yàlla defaloon dafa judd rek mel noonu day def koo fàggu koo ba am ko ci nit ñi ba liggéeyal yàlla ci jaamam bi jaam yàlla yi yàlla xiir jaam yàlla yi nañ ko bëgg borom xam-xam la waaye nag fi ne daana daanaka fi ne ak léegi dina sant rek katolis waaye jàng xëy wi la baaxee si see parce que maa wax si jumaa ji demal Seyid Yaxya bi radiallahu anhu dafa mos waxtaan ak moom ci jaam bu ne ko doon di sëriñ jàng dafay say dafay say lu ko neexal nag mu foog ne dëgg la lu ko neexal nag mu def baamu wax ne ku jàng dafay say xaaj Mouhamad nee na mu saytuwoon dëkk bi jox lañ ko lépp rek mu samp kër maam Galaane mi nga xam ne kenn la ci kàngam yoon dëkk bii may na ko doomam may ko jarbaatam ñoom ñaar ñëpp am nañ ci nekk si la àll bi ngi ni Mouhamad Quraysh teel ko na ne léegi moo juróom Zeynab lu baabatul la taawuloo ci këram teg ci maam Zeynab ci gannaaw bàyyam la ñaari nit loolu sax ba léegi dafa tëb may nit sa doom may ko sa jarbaat loolu ba léegi yokku tomb kon ñooñu teral leen suñu maam ala jàppalaay ñes dëkk bii teral leen suñu bàyyi ñun ñii li ñuy ñàkk ñàkk fu ne ñu ngi teral waaye yàlla na leen yàlla fay waay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla fay ñu yàkkamti bu leen yàkkamti al ajaratu min ash-shaytaan maanaam Abdoulaye Niass daan na wax ne ay fekk yaa ngi koy dégg duñ ca koo jëf waaye ñuy fekk yaa ngi koy dégg dina expliqué wu. bu ñëwee nag incha allahu taala kër Yoro gii ñun buñ demee ba jeex itam barke wax ak Mouhamadou Deme bu dana feeñ kenn ku ci dara dëkk bi dana mel ni dëkk yëpp dana doon njënd dana barke dana doon ci xam-xam yi wu nekk dana fi am bi isnillahi taala loolu moom Ibrahima bi tey loolu moom maa la ko wax. maa la ko wax gis nga ñun ñii amul kenn ku Cheikh Ibrahima la sant la baaw moom rek lañ xam moom rek lañ bëgg. gis nga moom li mu wax leen ci Yàlla Muhammad ilayka wala arju siwaaka wa in yaku siwaaka manaali maa qabiltu nawaala bàyyi wax loolu dégg nga yàlla yàlla day waxat de yonent bi la joxoon bokk ne ko yow rek yow rek lu jógee ci yow rek maa ngi jéggal jéggal naa yàlla. إليك ولا أرجو سواك وإن يكن سواك منالي ما قبلت نوالا قبل الغيوم سيدي في الجميع jolaale yi ñuy bëri bëri xam nañ ko ci jot bi nga xam ne mën nañ cee on onde ci moo tax mu ne foofu rek la ko bëggee waaye nit maa ngi wax naan lii ay doomi bàyyi leen benn waaye nga toog fële nag di ma déglu naan xoolal dafay ut jàngkat moo tax muy wax loolu walaay ndaw yi bàyyi nañu ñun ñii ay ndaw yi bàyyi nañu te lépp lu ñu war ci xaq Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu maanaam bi ñu ci yàlla dina am. dana leen ci xam dara nag jotaay bii tey di ko fekkee ci ay mbooloo yoo xam ne ñëpp maam El Hadj Abdoulaye Niass lay génnee bu ñu ñëw dajee mukk bëgg mel ni biir yàlla damaa bañ du am mukk. fii ma toog nii ba ci xoraan di mujj lépp ax fagal xayaatulaayu masal lépp yàlla la daan joxe ba léegi képp ku wet bi ko delloo lu daan joxe bu ñëpp ci bàyyi ah maa ngi gërëm nag suñuy doom imaam ci di gërëm suñuy doom bu baax a baax a baax a baax a baax waxoon naa fi daaw de ñi fi yàlla may wërsëg jox leen doole boole nañu wërsëg ak doole ak xel ñëw ñi ci seen wërsëg àggagut foofu boole nañu seen doole ak seen xalaat bu rafet ñëw ñi amul dara sax ñi fi newul sax ñu ngi téléphoné di wax naan fi suñu suyaare maam bi toll yàlla jàpp yàlla nit ñi def ci jàmm yàlla jël ci jàmm alaaji Mouhamed nee na bu nañ ko ootee jotaay nit ñëw fii taaxaam jàmm la baat buy tukki lu am taaxaam laa wax taaxaam jàmm la lu am da nga ñëw da nga ñibbi ci jàmm kon bu ñëwee loo xam ne ku ñëw toog fii la ci bokk date bi ngeen gis bu ñii kii chef yàlla kii la ku gàdd mais yaayee bëri jotaay bi képp koo daw ak koo mën a doon yërëm naa la bokkoo ci woon démb ku ci bokkul woon démb kenn mënul cee boole tey kenn mënul cee boole alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi ci yàlla boole sant nañ yàlla bu baax nag ci lii gis nga lii bu doon dëkk kon imaam bi mënuñ koo yëkkati mënuñu yokk Cheikh Bakki bii Cheikh Abdou Malik Mouhamadul Mahdi Mouhamadou Chafia Cheikh Abou Bakr ak seeni jigéen Seyda Aïcha Zeynab booba Umu Salamata Ndey Faatu lii lépp Seyda Mariam ñun mënuñ leen a yëkkati su oote woon caaxaan mënuñ leen a yëkkati daa ñu oote li nga xam ne kenn ku ci nekk si ñoom yaa ngi xalaat oote ko. mais yaay bi ñu ñëwee léegi loolu la ma wax état yi bu ñu oote bàyyi laa ñu mën téeram damaa amee métti waaye damay ñëw man ni ma moo ko tàmbali. ah. jeex na. sa jàmm mu ne loolu wér na jeex na. ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen ñii suñuy doom. yaa rabbi ya allah maa ngi jotaliku seen maqaama maam maa ngi jotaliku ci maqaama baayam maa ngi jotaliku ci saaxibu loxo Cheikh Ibrahim nga yéen ñii yéen la leen yàlla def ay mag yu bari yàlla na leen yàlla wattu yàlla na leen yàlla wattu seytaane ni tëg bu bu man cee dara góor ñi ak jigéen ñi góor ñi am na ci ñoo xam ne dañoo futteeku fanaan ci wet bi sët góor ak bu jigéen ak sax suñ soxna yi de ñoom ñu takkaayu nañ wax dëgg yàlla ñi fi toog nii attendez ba li ñu moo ci mag su ne wala bokk na ci ñi nga xam ne ñooy mooy boo ba ba sama classe bi moom ñi amee moo leen mag moo leen ci moo ci seen jiit dëgg yàlla damaa bu ñu boolee moom rek la moo tax loolu danaa ko loolu si wax yow saa yi lay nekk ci bëgg mbokkam bëgg ci des ñëpp ñu ngi leen di kër Cheikh Ibrahim kër Cheikh Tidiane suma kër ñu ngi leen di gërëm kër suñu mbokk Baye Daara ji mu seen a boobu ñu ngi ak Baye rakkam ak seen i jigéen ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ak Cheikh Omar Omar lu tax moom nekkul ci seen roo bi nekk waaye ñoom ñëpp nekk mbir mi ñàkk na ci loo xam ne su la ko yàlla fayee da nga am saal ci dunya wal axira li ciy teg rek mooy yàlla leen yàlla defal jàmm ñu ne kontaan nañ ci yéen kër Seyda Umu Kalsum kër Seyda Roqiya yéen ñëpp gis nañ leen ñun ñëpp gis nañ leen ay loolu rek laa solo waaye ku ñëw rek gis naa la te loolu la xeebuwul fi mu ne nag adduna li ci xew mooy boo waxee lu ñëw da ngay xuloo moom moo koy ñu ne neexoo dara boo waxee lu ñëw xuloo kat la dangay gaaw waale boo moo koy ñu ne neex dafa ñaaw jikko waaye ñaaw ma jikko damaa wax li ma gis rek dal na yàlla fay imaam jërëjëf jërëjëf ñu demee ba bëgg a tuddee bis bii tànn nañu hommage kenn nekk ci ay suñu ay yu ma xamul jotaay bii ci wàll yëpp suñu doom yi def nañu lépp ñoo ko def ñu ngi sant yàlla bu baax Seyda Fatimatu Zahra lañ ko tuddee xam nañ li ñu doon damaa wax léegi benn wax benn rajo daf maa interviewé ma ne ko yaayam suñu bàjjen askan ne seen ñëpp seen bàjjen la waaye ñun la gën a doon suñu bàjjen la ñu la bokk ak suñu bàyyi ndey bokk ak moom bàyyi ñaari jigéen ñi leen jur bokk ak xaaj Mouhamad Diarra ñaari jigéen ñi ñoo bokk ndey bàyyi maa man ñes jur ko ñun xaw ma kenn waaye ñun mooy si bàggeel ma te amul noonu bàggeel bu mel ni moom nag suñ koo am li ñu taxawaaye woon te métti na bu njëkk ga foog nga xam ne dara yombu ko lu ko imaam waxee sax ñoo ci daje bàyyi liman ba mu ne mu ne luy ngar ji bàyyi liman bokku ci topp bàyyi ci biir coow li bëree ak li fi neex mu ne bàyyi li bokkutoon ci loolu waaye ñun ba ñuy amee wallaay booba booba booba booba booba ñu doon ay diin diin mbokkoo sax yombul su ko wut mu yëngu def na ay doom ñu ciy góor ak ñu ciy jigéen li ñu xool ci daara ji fu ñu toll mu nekk ci. ñu ngi lay sant imaam ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla ñun amul lu dul ñaan yàlla waaye ñu ngi lay ñaanal yàlla te maa ngi gis yàlla ne li ñu lay ñaanal yàlla dana am. incha allah taala mu ngi koy yàq mu ngi koy yàq am sax. waa bi jërëjëf baat bu oyof la waaye ngërmande koy romb bëgg ngeen kuñ gërëm duñ la ko wax jërëjëf kuñ gërëm duñ la ko wax mooy nopp naa la rek yow yow nopp doog ko wax ci xoolal maa gën naan mooy nopp naa la ah. su boobaa nag xam nga dañ koy tax xoolal màggat moom ne moom dara wala wala jub naan jub naan ko sama kaay ko ne wala naan ndax xam nga koy naan. ñu ngi leen di gërëm bu baax maa ngi gërëm sama doole bàyyi yi jox ci jaani say jaara bi Cheikh Ibrahim. am yàlla ma defal leen la. maa ngi sant yàlla bu baax ci loolu la. gis ngeen ma daanaka takku ma dara waaye ñi ma bokk ak bàyyi yëpp suma xarit lañ ñi ma bokk ak bàyyi yëpp suma xarit lañ wax dëgg yàlla yàlla ma defal loolu rek nag xëy na yàlla ñu ko defal sax ñun neen la yàlla ñu ko defal waaw ay xarit dañ dañuy waxtaan dañuy diisoante dañuy xormaalante yàlla nekk ci kër bu ne bëgganteeg toppante ormalante dana ko yàlla defal rat bu nekk ci magam cheikh mii ñu tudd nañ ba bët ci dem boo jaay laa door a xam ne màkk màkk ba jàng jotee bàyyi dama cheikh Tidiane sama soixante-quinze mu dem jàngi Maroc takk jawar jot bàyyi cheikh Tidiane sama nekkte man ñun xamul ci dara man sama yaay ma ne yow man man maa dégg cheikh mii man sama هذا ما لك الشيخ ميلان قصوم قصوم الشيخ ميلان يضرب waaw benn bis lañ koy jàng benn bis lañ koy jàng benn bis dañu Cheikh Al Hadj Mouhamed Zeynab bu indi ci Rabbani 1947 47 ñu daan jàng mu jox Rabbani fukki junne ci jamono booba fukki junne ne ko ñii sooy doom lañ sama mbokk yi ñu koy daal xam ñu koy daal quoi ndax xam nga lu taw bi taw bi sax aw ma ko. li ma indee ci kanam bàyyi 1957 ak Boulaye ne ko kii bokkal na bàyyi na ko mu bokkal ak kii ngeen ne moom dafa soxla kàddu bu muy jàllee mu tibb fu bëri ñu koy wax ci kanam jëm yaa Koraan bokkal Koraan xam na ko mu tibb fu bëri na ma waxal man tànn ba pare ma waaw yow bokkal na yow sa bàyyi njëkk a daal Koraan ci suñu kër ci fukki at waaw boobu bàyyi ma wax loolu keroog. dama sa bàyyi njëkk tari alquran ci suñu kër ci fukki at maman laa ji bañ ne bu tari bu taree ñu génn ko. daanaka génn génn génn ci sax gis alxaj Mouhamad Dieng génn gis ko soxla jafe la mu sol mu ne ni si daara sol tey bi muy dugg ci dëkk bi bu ma ko gisee dama fàttali sama gërëm ci boppam wallaahi bu bu baax a la sol mu am ay weex-weex mu teg ma loxo ne ma kontaan naa sama kër gannaaw bi ma demee di léegi yaa njëkk tari alquran boobu ba léegi daanaka mën nga ko ubbi sax naa ko fi waaye yombut yombut dama am jërëjëf jërëjëf jërëjëf joo wàcce ko jërëjëf joo wàcce ko man xam naa Thierno yi ngay jonkonte ci ñun xam naa ko lool maa ngi gërëm Cheikh Mouhamadou Mbacke bii ñun ñaar ñoo bokk ñoo bokk bàyyi suñ ñaari weer bokk nawet bàyyi ñu bokk benn bàyyi teg loolu du caaxaan loolu ak bokk la. maa ngi koy gërëm bu baax moom itam maa ngi koy sant maa ngi koy ñaan yàlla ñàkk jomam dafa tax réew mi bis bu set am na ci daje parce que lu baax wax mu ne tari bayaane di soxla qaala allahu qaala rasulullahi qaala cheikh ñu xam ci bàyyi dara bëreetul dina bàyyi bàyyi bàyyi jaaykat yi jàng yeeg ren yeeg dégg nga ak bu ci ñu takkal ay pétaw dañoo foog ne bàyyi lu la bàyyi ne bàyyi bu sëriñ bi tariyaax bàyyi rabbaani la alim rabbaani la woon daf daan yare ci yàlla di sóob nit ñi ci pay bu ma jàngalee loo toppee yàlla ci saa ba pare xam naa àgg ak yow foo xam ne booy na ko alaay nga xamante ne boo xool toppee ma doomu soxla ñu ngi ci téere alhaji Mouhamed Seye bu ne woon na bàyyi lépp li ci diggante kii li ci diggante bi nii ci loolu la bokkee yaay sama lekk nag yaay sama naan yaay nit mi ma sol yaay sama yaxantu yaay sama kawar gi may war sa bunt rek ci lay taxaw dem sax ba naan ala yaa du aatal waxtu fan kat sa ku daaw oote kat jamono ji ba leen oote bi rek. O Orada var diyorum, orada bir, orada bir yeter bir niye çıkamam. Yani hiç bir türlü çıkamam. Hep milyarlarla, bu milyarlarla beylersen, Ya Rabbi Allah. yàlla doon ci moom bëgg di bëggoon Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dañuy ñëw léegi dañu daal ci xabro cortège bi yëpp taxaw ci daara bi dama ay ci ñëwal waxal taxaw nañ sa kanam bàyyi ma ne ko ñu ngi ñoom rek lañ yëkkati bu ñu ko defee nag ñooy foy soxna yi boobaa itam ñun suñoo néew ci waaye mbir maa ngi doon dossier baa ngi doon sa loxo ñu ngi dem nag ñu jàmm saa bu baax a départ ah waaye yaakaar naa ne bu ñu leen dellu dellu yokk koy xam nañ de daje bii ci département ci région de Kaolack bii bu passé Gamou tey ba ah bu fekkee ne bu am itam boo ko amee doomu ne qualité bi ñu fi teew mën nañ fee teew. te takkusaan ba léegi ñëpp toog di déglu loolu du caaxaan kon jërë ngeen jëf beneen yoon jërëjëf waa kër yoon di sant bu ngeen yëgee bu ngeen déggee bu ngeen déglu amul dara lu leen naqari ci yéen wax naa leen léegi ci bëccëg beneen ñaanal leen yàlla leen a am leen bor li ngeen ci suñu bàyyi ñaanal leen yàlla ñu mën fay. suñ demee ba mu nar ñu ñëw ndax ñun suñu ay màggat lañ koy bu bàyyee suñu doom ñu dinañ ko fay incha allahu taala ñoom ñii dañ leen ko bàyyee dinañ ko fay bu soobee yàlla. daañu leen yàlla waa Kër Yoro dafa naan xaj Mouhamed Dieng yéen da ngeen ko fay bu soobee yàlla gën a da ngeen ci def yëpp bëri na ñam ñu dugg ci dëkk beeg tant bi leeg leeral yeeg ak ñi ne loolu ñi ñi ñi ne woon dara du am loolu lépp yàlla dëgg la ci tànkam ngeen amal ko. seen coow li ngeen doon def léegi nit maa ngi ñuy dégg alhamdulilah rabbil alamin waaye yàlla ngeen dugg fan yàlla fay da leen yàlla dox seen barke maam loolu laa leen di jaawal seen barke maam ñu doon wax ne man ku ma ànd ak suma taaliba di ma ko xaale àllaaxira danaa ko fay fii ba mu yëg ko ci àddina ba mu yëg ko ba mu xam ne fay naa ko ñu soog a dem àllaaxira maam moom ñu mas a àndal yëpp fii ci kër Yoro amul ci kenn koo xam ne ku dara taalal sa loxo gannaaw jëm ci kenn taalibe yëpp ku am soxla daf leen seet daf ci may wax ak yow kon yéen itam ne leen yàlla fay jërë ngeen jëf arab yi Cheikh Diagne jërëjëf arab yi jërëjëf Cheikh Ibrahim jërëjëf Cheikh Ibrahim bii nga xam ne maa ngi waxoon naa ko fii daaw maa ngi koy baamuwaat yéen xam ne xaaj Mouhamed Délé bëggoon na bàyyi fonkoon na ko borom chance la woon nag ndax li ko yàlla mayoon ci xam-xamu saahir nga magee fukki at yàlla jox ko xam-xamu baatin boo xam ne addina yëpp la dinañ ko yow nga bokk ci ni ko ñu koy nangul loolu chance la yàlla mayoon na ko xam-xam waaye dafa ci tegaloon chance mais nii nga gis nii addina bii nit ñi nanguluñ kenn waaye moom nanguloon na bàyyi te boobu dara wax xewagul sax ba mu wax bu dara ñu bokk di kanam bàyyi di jàng la ma xooloon rek nangul bàyyi moom la gënoon a bëgg ci mbokkam yi moom la njëkk a tuddee doom la njëkk a tuddee yaa sànni Ndiaye moo leen juróom dama ko tuddee sama maam Jalle bu taam daf ne maa ko tuddee sama ndey di nay suma xarit di nay suma mbokk ak sama kooku moom lañ bëgg ñu nag man ak yéen ñëpp mën na ko dana ko doxee ci xam-xam bu leer dana ko teg fu dëgër kitaab ak sunna waaye jërëjëf yal na yàlla yokk sa xam-xam yal na yàlla wéral say cër yal na ñàkk a dajee fii yaa rabbi yaa allah kenn musul la Ibrahima bi tey wax na ko mu ne kenn kenn mu ne mu ne ba mu lay xam kenn xamul la yaa ngi yoon ci woon nekkate yàlla ko dimbale woon itam mu njëkk laa ibtisaam Ibrahima bi tey jërëjëf de barkeb alxaaji Mouhamad Zeynabou yàlla na royaat sa kaw ma ne sol nga ci bu am nga ci oto maa ngi yaakaar ne dañ ci am avion incha allahu taala borom yéen ñi toog fii yow am na ci yoonu màkk da ci yóbbu màkk itam incha allah bi idnillahi taala borom mi toog fii ku nekk ci ñun ñi yaa ngi soxla boo xam ne ñu ngi sa xol tàllal naa sama loxo teg ko ci loxol xaaj Mouhamed Zeynab bi nga xam ne xalifa la ci xalifaay Cheikh Ahmed Tidiane yi xalifa la